dañuy nettali ni dafa amoon village boo xam dafa ci wetu benn bu a mag am benn àll bu bari garab bu ko féete gannaaw village bi mi ngi composé woo ci quelques cottages yoo sont cottage bant la cottage ne ay bant lañ ko village ba ñu fa dëkkoon ay nappkat lañ yoo xam ne doon ci bi ko ci trop de seen malgré pauvreté nappkat yooyu amoon habitude du chaque jeudi ci ngone ñi organiser sen fête dañuy dem ci bayalu dekk ba tal sen tal bu maga mag wër ko du tëgg ak di fecc ak di way ñu continuer nonu ba guddigi sori torop buñ démé ba fête gi wara jeex sen jitt défé déclarer joxé turu waaji nga xamni mo gëna réel a réeli jën bi mu napp ci diiru semaine bi yépp kok mom dañ cey neexal jox ko xaaliss aussi tamit may ko une semaine bo xamni du ko liggéey daf cey passé comme nim ko ko da fay nek ci ay yittee ci biir mboolooyu nappkat yooyu amoon ñaari frère yoo xam ni grand frère bi mi ngi tudd tuddoon Sarsar petit frère bi moom mi ngi tuddoon Sayyaar mag ji grand frère bi te mooy Sarsar dafa nekkoon jeune bu tàyyel koo xam ni sos ay fen créé ay problème bañu lor kenn noonu la dëkkee woon ak ñoom alors que rakk ji nekk nit ku am jom nit ku am dignité ko am lu muy bañ nit ku fonk liggéeyam koo xam ne du hésité benn yoon pour dimbali koo xam ne daf ko tane ñoom ñaar saa buñ àndaan génn pour dem nappi mag ji te mooy sarsaat bu ñëwee day xool fu mu njëkk a jot ci dex bi sànni fa mbaalam xool benn garab bu am ker mu dem wéer fa gannaawam nelaw ba tàkkusaan paase bu jógee dem ci dex bi xicc ci mbaal li mbaal bi bu ñëwee lu mu àndal si ay jën mii noonu bu jën yi baree sax mu wàññi ko pour rek yéen bi woyof te rakk ji nak mom da daan xol ci dex bi place bo xam day yaakaar fii dana am ay jeun yu mag jeun yu bax ñu mi def ba yegg fa dana sonnam sori yonam neeku ci mom liko amal solo rek moy na fexé nap jeun yu baax bax jeun yu mag ben jour ñu and genn ñom ñaar Sayyaar daal di dogu ci ne tay balay delluwaat dekk ba il faut rek dafa nap jeun bu maga mag lu mu guddi guddi bëgg na mu jow galam commencé suubu ci bi di dem di lu bari mag ji moom daal di bañ a ànd ak moom def comme ni mu daan def sànni mbaalam fu mu njëkk jot ci dex bi xool garab bu am ker wér mu commencé nelaw bañ demee ba bëccëg bi paase ba ngoon passé timis jot na pëkkat yëpp daal di dellu ci waat ci dëkk ba ba mu def sa yaar moom ba léegi amagul jën bi mu bëgg mu dogu ci ne rek donte day fanaan ci dex bi waaye balay ñibbiwaat il faut rek mu napp jën bu mag a mag comme ni mu ko bëggee bu sànnee mbaal bi diir xëcc fekk mbaal bi fees dell ak jën yu ndaw mu virewaat lépp ci dex bi sànniwaat mu continuer noonu ba guddi gi sori loolu sa yaar daal di sonn trop ndax yendoon na liggéey xëcc mbaal sànni mbaal coono jàpp ko ak gëmmentu ba yàgg mu nelaw ci gaal gi mu xóot ci ay nelaw nelaw yu méttee metti bam nelawee ba yewu mu lamb mbaal bi fekk mbaal baa ngi diis diisaay bu jéggi dayo mu xëcc ko ak lim am ci kàttan lépp ba dugal mbaal bi ci gaal gi mu xol fek mbal bi mi ngi mbal ben jën bu maga a mag jën bu rafet jën bo xamni forme bu rar la amé beuti dafa dafa bëla way bu rafet nageoire yi or la Seyar commencé jow galam ak jënam bim japp jàpp jëm tefes ga bam démé ba yegg ci tefes bi wara muri jën bi ci mbal bi mu dégg jën bi di wax ak mom comme xalé bu ndaw bi wax mu ko yow nappkat bu baax bi ana lan nga bëgg ci génné ma ci ndox mi ta xamni man suma génné ci ndox mi damay dé bu dé ni alal dong moo tax nga bëgg ma génné ci ndox mi man maa la ni dina la def borom alal bu dee ni nag da nga ma bëgg génnee ci dox mi ndax da nga bëgg nap rek maa la giñeen ni sa diiru dun di ko recc boo ma ma delu ci sama wa kër sama njabot ndortal ndoortal wu nekk dina la jox ben per bu rafet per bu rar manam commencement weer wu nekk se yar da de ndax dafa deg bi di wax ak mom te mom xamul ji wax mu tu tuti waye ma xamne bu mu ko baye mo tamit du ko yakal dara mu daal di koy bàyyi mu dem ba mu demee bay dem moom jën ji mu génnaat ci ndox mi sànnil Sayyaar benn per bu rafet rafet ci biir gaal gi Sayyaar daal di koy fort kontaan loolu ndax rafetaay gi mu rafet dafa ci poosam delluwaat dëkk ba ba mu demee mi ngi fekk moroom nappkat yi moom ñu ngi seen feet taal seen safara nekk foofu di coow ak dinaan di woy ka fecc ba mu ñëwee nag moom mu xool benn place boo xam ne place bu sori la place bu isolé wu mu toog foofu ndax dafa sonn moroomam yi jéem a ñëw convaincre ko pour mu ñëw bokk ak ñoom seen feet feet ci kafaree comme ñëpp waaye rek mu ne leen damaa sonn loolu ndax démb damaa fanaan ci géej gi mag ji bëgg a loolu occasion commencé di saboote rakk ji yor sàngaraam di naan te naan ko ah ndekete daal nëpp jën bu mag du nii la yombee da ngay yéen ci géej gi fanaan ci te doo am tus yàq li nga am ci temps lépp waaye li muy wax yépp moom sa yaar mu ngi toog mel ni ku ko ku ko déggul mi wax ba mag ji continuer di naan di ko tooñ ba yàgg ba sàngara bi jàpp ko muur xelam mu séen lii leer xet ci poche rakk ji Sayar mu yooxu ni ay gars yi kaay leen xool Sayar liy génn ci poche am leer bu rafet rafet moo ci nekk ñëpp daal di ñëw wër ko du xool lool lan la sa Sayar jéem na ko nëbb waaye mënu ko nëbb mu won leen ko waaye nag taxul mu wax leen benn yoon mbiru jën bi nga xam ne moo ko koy jox wax na leen rek bañ yaakaar ni daf ko for ci géej gi ñu daal koy bàyyee sarsaar ba mu demee ba sàngari bi bàyyi ko ba xelam dellu si xolu ki ñaan daal di koy dugg mu iñaane rek kam loolu nga xam ni am na ko mu xalaat ni war na mën a jaar ci per boobu def ko yoon boo xam ne ci lay jaar pour dugal rakk ji créer ko ay problème loolu jaral ko mu bàyyi ba ñëpp dugg seen kër yi mu yolleeku nànk dem ci biir dëkk ba dem kër gouverneur ba mu ñëwee ba si garde yi téye ko mu ne leen man dama soxla gouverneur ci mbir bu urgence mbir bu intéressant lool ba ko garde yi waxee gouverneur wax nañ ko bàyyi mu jàll si bu ñëwee mu wone fa ay teggin yoo xam ne moom xëy na teggin yi moom ci buntu kër gi la ko fore mu ñëw commencé di waxtaan ak gouverneur won ko ni moom mbiru dëkk bi daf ko intéressé te it day dox du ko jàppale ci lépp loo xam ne day defar dëkk bi mu ne ko loolu taxoon ma ñëw am lu ma la bëgg a wax man dama fi am benn rakk joo xam ne moom amul dara maak moom a yem di jënd jaaru sax amuñ ko mais dama gis mu yor fi benn per boo xam ni moom boo ko bëggoon xayma xanaa di nga ko xayma lu rëy rëy soit ko daf ko sàcc wala boog soow mi am na lu si ñuul loo xam ni yéen ñi kilifay dëkk bi war ngeen ko xam. gouverneur daal di jug ànd ak benn mbooloo bu mag a mag ci ay soldaar jubali ci village boobu nga xam ne fa la nappkat yi dëkk ba mu ñëwee laajte sa yaar ba agsi ci moom nangu per bi nga xam ni moom la yoroon digle pour ñu tëj ko kaso def ak moom enquête. bu mu xëyee la lendemain moom gouverneur mu xalaat ni Sayar bu ko tëjee tëj googu mu ko tëj amul benn njariñ te bu ko bàyyee mu dem mën na am ci moom yeneen perte loolu tax mu bàyyi ko ba mu ko bàyyee nag mu daal di woo mag ji Sarsar daal di koy neexal ci yoole gi nga xam ne moom la yoole am jox ko xaalis bu baree bari daal di koy digal nag pour mu surveiller ko ñu passé quatre semaine yoo xam ne diiru quatre semaines yëpp Sarsar moom mi ngi surveiller rakk ji surveillance bu sincère surveillance bu sévère ba mu tombeek ñu yegg ci ndortal weer wi sarsaar gis sayyaar yor gaalam ak mbaalam jawale ci dex ba mu topp ko gaaw du ko surveiller à distance du ko topp diir bu sore sori sayyaar commencé joow gaalam ba yegg ci barab bi nga xam ni maanaam ci place bi nga xam ni fa la jën bi nekk mu taxaw di ko xaar taxaw di xaar ba jant bi soow ba weeru feq jën wi daal di tibb sànnil sayyaar ci gaal gi benn per comme ni mu ko defee woon Sayar nag xamul woon ni magam ju doy waar jooju mi ngi ko doon topp pour xam fan lay jëlee per yi te it ba mu fa jógee dafa dem kër gouverneur pour am nu mu ko nettali. Sayar jóge ci dex ba dem ba yegg këram daje gouverneur ak ay soldaaram ñu nanguwaat per bi ci moom waaye cette fois ci dañ cee boole dóor ko dóor yu méttee métti te luñ jublu ci dóor yi dañoo bëgg waa dëkk bi ragal bañ ci dugg bañ def intervention. Sayar nag daal dinay ragal xelam dalatul mi ngi ragal gouverneur xam jën bi. mu décidé bu demaatee day wax jën bi bu mu ko joxati dara te it da koy wax na changé place am lay gouverneur di agsi ci moom di ko sàkkal pexe ba mu demee ba rendez-vous bi jotaat weer dee sa yaar jëlaat gaalam commencé joow ba yegg place bi nga xam ne fa la jën ja nekk jën ji ba mu tebee dem ba kay saanil mu daal kay yóox ne ko eh, yow jën ju baax ji taxawal dama la ñaan dimbali ma rek nga bàyyi per yi nga may jox te it boo mënee déplacé wu dem dëkk feneen maa lay ñaan nga def ko pour sàmm sa bakkan jën yi daal di koy laaj lu xew sa yaar daal di koy nett li mbiru gouverneur jën bi na ko bul ragal tey dama lay jox beneen per boo xam ni per bu bële lay doon per bi nag day doon per boo xam ne dama koy posone ku ko laal dina am feebar bu méttee métti bu mu def ci der bi te it dara du ko faj lu dul benn noix boo xam ne dinaa la ko jox benn xoox boo xam ni dinaa la ko jox jën ji sànnil ko per bu bële bi sànnil ko noix bi delluwaat ci ndox mi Seyar jël ay bagages am jël per beeg noix bi def ci poche am demaat ba yëgg ci dëkk bi cette fois ci mu dajawaat ak encore gouverneur ak ay soldaaram ñu dóor ko nanguwaat li mu yore. gouverneur ba mu jëlee per bi si Seyar ba delluwaat këram naka la yegg rek ndekete poison bi commencé woon na def effet. ba mu yeggee fekk yaram bi commencé di xonk ak dine wi di metti mettit bu taratat mettit boo xam ne day yokk rek docteur bu ñu ko wool pour mu faj ko mu lottu ci faj ko benn docteur mun koo faj ba buur dëkk bi yégée ni gouverneur am dafa feebar feebar boo xam ni benn docteur mënu ko faj feebar bi metti na loolu mu jugal boppam personnellement pour bu demee seeti ko xool ko ak it xoolal ko lan la soxla mu dimbali ko ci waaye ba buur bi ñëwee laaj waxtaan ak gouverneur daal di kee laaj lan moo ko dal dëgg-dëgg lan la gouverneur tamit war a obligé ñettali bi nga xam ni mooy histoire am ak Sayyaar ak Sarsar ak per bi mu daal di koy nettali bi buur bi yabal ay soldaar pour ñu dem village yu nappkat yooyu indil ko ñaari mag yooyu te ñu Sarsar ak yaar ba mu ñëwee mu laaj Sayyaar Sayyaar daal di koy nettali mbiru jën bi nga xam ne moom moo ko doon jox per yi buur bi daal di ne gouverneur am yow ko doy waar nga ku ñàkk a màndu nga te lii taxul ñu teg la fi waaye nag bëgg naa lépp loo xam ne jëlal nga ko ci moom nga daal di ko koy delloo. dal daal sar-sar, yow ku gatt bop nga ki di sarak nga war ko soutenir war ko taxaw war ko dimbali amo lo def lu lu ko lu ko dugal lu ko créyal pour mi am ay problème ni xam nga ni li du saw devoir digale mom pour ñu tek ko ci kasso bi waye sa yar mom comme dafa nek nit ku bax nit ko xamni jikko ju rafet la amé mu sakku ci bour bi ne dama lay ñaan bour nga may man rek ma fajal la sa gouverneur bi bour bi daal d'accord mu noix bi te may xox bi tej ko am ñam bu ci nek mu jox ko ko fi si gouverneur bi daal di wér waaye bi lu ko jikko rafet nga ne gis na ci mu digle pour ñu gouverneur bu foqale boobu am bu ñàkk maanu boobu teg foofu la gouverneur dëkk bi gannaaw bu mu nekkee nappkat nappkat yi nag fal guñ fal mu doon bu a ci ñoom ñu daje kër bu bees def fa seen feet bu mag a fa